Yes. test test. ndox dafa am solo ci dund doomu aadama mën naa ni l'eau c'est vie moo tax nag may sàkk ngeen xoolaat euh, situation Darou Moussi dans le département de Kébémer. ndax Darou musi mom mo nekk commune bu gëna mag ci département de Kébémer mu ngi regrouper 71 villages commune bu Darou musi rek mu ngi regrouper arrondissement bu Darou musi mu ngi regrouper 7 communes wante 5 forages ñofa am ta benn bi doxul ndax dañ ko gas rek bayyi non yenen ñaari forage yu ci des amul château d'eau motax magal màggal musi bu ñëwé dañuy am jafé jafé ndox réseau bi tamit depuis temps Senghor la won dañu dem a dem ba tuyo yi dañu xomat kon fofu ma ngi sàkku ngeen indi fi ay euh, safara ba paré tamit euh, arrondissement bu daru mus ak commune yu mu regrouper muy daru mus di manan euh di Mbàkke kadior di ndoyen di sam Yabal di mbadian ndoxu xorom mo fa am kenn mënu fa pratiquer Euh, culture hors saison la maraîchage Fofu tamit la fi monsieur le ministre ba tay tamit ci département Kébémer commune yi nga euh, à l'image de la commune de Diokoul euh, exploitation du jurcon bi machine bi nga la CGO di utiliser pour gas jurcon bi dafa dem ba dafa dem ba dafa def dafa dem ba dafa yàq ndox bi su ma jëlee exemple village yi euh, di na ak Njeben Gànjool foofu ndox bi day mel ne tiir parce que euh, gas bi moo tax ndox bi dafa dem dafa dafa dafa laal ndox bi ndox bi qualité bi dafa yàqu kon daal maa ngi sàkk nga indi ay saafara ci jafe-jafe yii ma indi je vous